bu rëy a rëy la defet bu rëy a la ci yoon wi war nañ cee taxaw war nañ koo saafara képp ku ci waxul tamit da ngaa ragal te diine ñoru la waaye ku diine ñor jëmm jéem a jàkkaar lool ñor la di xam ne Serigne Touba léppam julli la woon léppam jaamu yàlla la woon léppam du ko bàyyi woon musta am bànneex ci àddina ngir jaamu yàlla sëriñ bi musta am bànneex ci àddina ngir bëgg lu baax ak bëgg ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala kon nag bu fekkee da wax ne yaay sëriñ Serigne Touba wala yaay jabaru sëriñ Touba yaay taalibe bi gën ci moo bi ci nit ñi yaay sët bi gën ci nit ñi bu fekkee da ngaa bëgg a taxaw wax ni Serigne Touba mooy sa Serigne wala mooy sa maam te moo gën ci nit ñi war ngaa fexe tamit prouver luy wane ni yow it ci nit ñi gën nga bokk kon ndax sëriñ bu baax kat boo ko amee la ca baax mooy nga nekk taalibe bu baax maam ju baax it boo ko amee la baax mooy nga nekk sët bu baax loolu moo ci am solo ndax gis nañ doomi Seydina Noox fa mujj waxuma la ngir provoquer kenn waaye dafa nekk loo xam te ne munkarun ankarnaahu ab tiis ab lu bon la lu xew ci yoon wi ñëpp a war a taxaw weddi ko ñëpp war a taxaw wax ci ndax lii kat dafa tiis bu kenn wax nag ni waroon na ko wax ci suuf ndax wax naa la ma waroon a wax ci suuf waaye kenn faalewu ma moo tax ma def déclaration bii di wane ni kat lii nga ko def seen bopp la présenté waaye présenté wu suñ mun taxaa wul xalifa général des Mourides présenté wul yoonu Mouride présenté wul suñ Touba présenté wul kàddu lislaam li mu présenté mooy ay jëmm yoo xam te ni seen bopp leen ñor seen dund leen ñor seen addina leen ñor moom la ñu bëgg a fas yéenee jagal waaye seen alaxira ak Sëñ Tuubaa ñoru leen loolu képp lay signifié wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin